aju sur la conjoncture mais également sur la structure globale réorganiser ko ba mu nekk loo xam ne dina durable loolu nag liggéey la boo xam ne da forcément di da ngay ñëw teg sa loxo nii du du bâtiment bu ñu teg mais ay réforme la organisation la boo xam ne à terme mooy tax ku nekk di ci di ci gis boppam mooy tax sax kii kii auto entreprendre environnement am permettre ko mu survivre mais fàttali ne ay année 2013 yooyu ba 2014 amoon na vague bu rëy bu amoon jëm ci agriculture ci vallée mais ñu bëri bëri dellu si nañ ñu bëri jaay nañ seen i ñu bëri jaay nañ matériel bañ bañ jëndoon parce que environnement bi loolu accompagne loolu amul joxe ay terre wala jënd ay mais il faut pour que les agriculteurs les agriculteurs s'en sortent mhm. il faut bi nekk intrant laneen jur laneen donc global ci globalité boobu lañ lañ la war a agir moo tax ma ne may may fàttali ne euh, Sénégal yi def nañ choix bu rëy fal le président Bassirou Diomaye Faye sur la base d'un projet projet boobu nag foog ñu xam ko. mais projet bi tam gaa yaa ngi naan fu mu ne guñ ko ñi naan ah. projet bi existé wul. loolu moom projet bi existé na wul moom xoolal gouvernance bi ñu doxal rek ni ñu doxale ndax li ñuy def lépp am na am na cadre bu mu inscrire am na cadre bu mu inscrire mais nag bu naan projet bi bu ñu naan sa débat bi am foofu c'est un truc qui est très simple euh, mooy da nga am sa projet euh, de boo soumettre Sénégalais yi am sa idée mais dans un pays boo xam ne opacité. moo moo gouverner la gestion publique tu es obligé de confronter avec la, situation que tu sur place loolu la rek mais les idées sont très claires te WISPA yi ñu posé xam ne y a un cadre d'ensemble qui voilà qui organise l'action. Mm. te xëy na d'ici dinañ ci gën a xam lu leer ndax. Euh, premier ministre euh, war na mun a dem ca assemblée nationale xëy na fii ak diir bu gàtt ndax nee nañu député yi. Hmm. dinañu sax lolu tey ak ëllëg pour xool naka la ñuy joyantee. règlement intérieur bi gannaaw tànki jàmm yi tamit ci président euh, dox. <laughs> waaw mais xam nga le premier ministre je pense que biñ ko falee li mu njëkk def rek mooy waajal déclaration de politique générale am ndax ku xam fi mu fi mu bëgg a dem la. kon pare naa loolu lépp Sénégal yi moom li li ñëpp mën a mën a seere mooy le premier fi mu bëgg a dem wala li mu bëgg ci li mu bëgg ci Sénégal tey ñi mu nekk premier ministre war ci am lu mu xam na ko bu baax a baax a baax donc il n'a pas de problème à faire sa déclaration politique générale y avait des problèmes te tey ji il est ñu gis ni assemblée nationale kat ñu ngi waxtaan ngir yombal loolu incha allah rabbi dina ko def prochainement et ci leneen voilà ndax sénégalais ñi ngi xaar commencé nañoo liggéey ñu war a mën a concentré wu ci ci ci liggéey boobu voilà. seen xel mi ngi ci tas assemblée nationale. Euh, nag. Euh, déjà defe lu lu cohérent lay nekk tas waaye mais surtout defaraat ndax tasuñu pour tas mais surtout defaraat Sénégal yi ñoo def benn choix. defaraat c'est-à-dire. Sénégal yi dañoo def benn choix voté le président Diomaye Faye benn projet politique suñu réew ni mu bindoo faut avoir les moyens de mise en œuvre assemblée daf ci bokk donc sénégal yi ñooy dem confirmer ne kat lañ voté woon ci mars bi ñun loolu lañ gëm ba léegi. mooy moom lañ gëm ba léegi ñu ngi fal. jox leen kàttan ñu liggéeyee liñ bëgg ñu liggéeyal ñu ko exécutif daf ci am wàll waaye législatif bu ko accompagner contrôle ko daf ci am wàll donc cohérence d'ensemble lu ñu war a parachever la euh, te jàpp naa ne loolu urgence la donc man je crois que prochainement il faut qu'on qu'on aille vers une nouvelle assemblée pour permettre euh, qu'on ait une marge de manœuvre. nouvelle assemblée est-ce que da ngay xalaat ñu xoolaat nañuy tabbee même les députés. Euh, waaw loolu je pense que am na waxtaan yu amoon mais personnellement tey ji mënuma ci mënuma ci indi indi conclusion mais déjà que les Sénégalais puissent confirmer le le le choix le, de Mars mm. mais il est clair maintenant que en tout cas ñun au niveau de la coalition présidentielle euh, on est très regardant sur les profils qui iront à l'Assemblée mm. parce que dañ ko yàgg dañ ko yàgg a wax euh, teewal sénégalais yi Euh, Sénégalais nag ñooy tànn bien sûr mais liñ mën ñun ci proposition yi yi ñu nar a def maanaam yi ñu nar a investir jàpp naa ne dinañ jël en compte bu baax euh, qualité euh, personne yi nar a teewal gox-goxaan yi ndax kat assemblée dafa nekk fu am solo assemblée nationale fu am solo lool lool ña fa nekk war a teewal Sénégalais yi bu baax a baax a baax te ji ko gis Guy Marius Sagna ni nekk assemblée nationale Sénégal CEDEAO gi mu dem na mu fa taxawe xam ne kii. yëngal na ko mission la am. population yi muy teewal jox na leen cër mi ngi wax seeni préoccupation assemblée noonu la war a mel Sénégal yi nag choix yooyu la war a def confirmer ko incha allah. député yoo xam ne ay député du doon. du peuple ay député Diomaye ak Sonko. député du peuple comme ni ñu fi doon déggee euh, député. waaw ah, ah, waaw non Diomaye ak Sonko loolu la ñu woote loolu la ñu gëm nit ñi ànd ak tamit loolu lañ ñu gëm. parce que ñun sax li ñu bëgg a liggéey am ñu ñu àndal yoo xam ne bu ñu naroon a jàdd ñu fàttali ñu ko wala ñoo xam ne tey jii dinañ complété ñun la ñuy xool di ko gis ñu indi ci yokk ci leneen. Mm. ngir jëf yi mën a gën a mën a leer gën a mën a tegu ci yoon loolu lañ soxla donc loolu du yàq defar la. am nañ jàpp ne tam cohabitation du yàq yëf yi peut-être dina gën a indi équilibre et d'ailleurs dégg nañu une certaine opposition ne ci loolu la ñuy liggéey. ah mais loolu il s'agit là juste yi confirmer ko. incha allah rabi bu ñu demee bu ñu ñu demee demande sénégalais ñu ñu ñu ñu ñu pour plus de quoi sénégalais dinañ wax li bëgg. parce que yéen bi ngeen nekkee ci opposition bi da jàppoon effectivement cohabitation mooy indi équilibre d' en on a frôlé la cohabitation. oui tuuti ngeen am député yu. d' accord mais d' accord mais dans un contexte très clair et très particulier. ok ñu wax cohabitation en deux en 2022 aussi c' est parce qu'on allait vers une élection en dans un contexte que nous que nous connaissions. il fallait mettre des que que assemblée mën a nekk benn contre pouvoir bu contenir certaines velléités je pense que en 2024 les Sénégalais ont fait un choix clair donc aujourd'hui il s'agit de retrouver la cohérence du choix que les Sénégalais ont, ont, ont déjà posé mm. voilà maintenant euh, cohabitation ou pas ce qui est important il faudra que l'assemblée joue un rôle mooy li ñu doon wax léegi mm. assemblée yóbbuñu fi ay député Diomaye wala Sonko c'est des députés sénégalais qu'on amène mm-hmm. là la coalition mais c'est député yi bokk suñu assemblée taxawaay bu am solo lañ am gis ngeen ne Guy Marius Sagna am doon def di interpeller le gouvernement mi ngi koy def assemblée yeneen député yu bokk suñun ñu ngi koy def loolu mooy lan mooy taxawaay bu bees ci yu député yi war a am te bu ñu demoon vers euh, une nouvelle assemblée aussi loolu la ñu xaar ci député yi ñu teewal population yi parce que teewal population yi si noonu lañ mën a jàppale njiitu réew mi wax ko dëgg topp li ñu war a topp fexe ba Sénégal yoon bi mu diggante ñu nekk ci ñu mën kaa wàcc. Mm. mënuma la bañ a laaj loo waajal jigéen ñi ci ONFP ndax xam nga ne ils ont besoin réel de formation. ñi ci euh, nekk ay ndaw ay mm. jigéen amu ñu xëy amuñu tàggat. ñu ngi mm. ci 43 pour cent autour de ça contrairement ak góor ñi xam ñu ngi ci 29 pour cent donc yayoo nañu ñu beral leen loxo est-ce que yaa ngi leen di bàyyi. te te muy dëgg euh, àdduna daal ay góor ak jigéen ñoo ñoo nekk ci àdduna bi euh, réew mi ay góor ak jigéen ñoo fi nekk. donc boo bëggee dëgëral réew mi da ngay dooleel jigéen ñi dooleel góor ñi. donte gisaguñ ko ci gouvernement bi ñu ngi kaas. Ah, dangay yi da ngay ah, gis naa ñi gis. ñi ah, gis ay góor. wala teg ay góor. ñi gis en fait en d'accord naa mais loolu sax dama ci parce que li ma naan question nomination yi mais c'est pas une question de yëkkati góor pour teg jigéen du ñu nommer parce que y a projet euh, y a des profils plus ou moins adaptés euh, les femmes sont très compétentes comme les hommes mm. mais nomina les nominations ne tombent pas du ciel du benn genre jeu d'équilibre rek teg góor teg jigéen il différents aspects qu'il faut prendre en compte mais nous souhaitons et le président de la République xam na place jigéen ñi ci combat bi ñu mëne mm. et dinañ am plus de responsabilité ça va se faire euh, au niveau de l'ANFP maintenant au niveau de aussi on est conscient il faut jigéen ñi seen place ci société bi économie bi dafa yaatu lool mm. fu bëree bëri boo fa demee nga gis ne jigéen ñi bu njërut kër yi tamit sori nañ lool ci ci yorinu kër yi ñooñu nag jàppale leen mooy jàppale société bi mooy dëgëral société bi foo ñu wutale leen ay formation ñu mën a liggéey mhm. ndax tamit eh, jigéen mën nañoo nekk ay commerçante wala jigéen ñëpp mënuñoo xëy di di togg di yendu rek di wàcc foog ñu forme leen jàppale leen moo tax déjà au niveau de l'ONFP fekk nañ fa déjà ñu joué bu am solo ci accompagner jigéen ñi sur des formation nous on veut renforcer on veut renforcer mais comme ni mu ko waxee léegi aussi amener de l'innovation mooy formation jigéen nekkatul rek transformation fruits et légumes mais tey les jeune fem tey jii mais même dans les domaines techniques mécaniques leneen ak leneen mais war nañ ci mën a liggéey ndax yeneen ñoom ñooy ñëw vers yéen wala yéenay dem vers ñoom parce que sénégalais aussi bokk na ci li leen ëpp bari voilà je que je que dañuy dox daje mais ñun on que tey jii on a une mission qui va à Kolda euh, pour trois jours pour ñu fa def mais temps aussi benn forum pour vers les populations les acteurs expliquer leen ONFP ay mm. formation ay possibilités mais l'idée c'est de vraiment former les jeunes femmes avec la particularité comprendre seen situation tey jii une mère de famille tey jii boo ñëwoon ne ko dama lay jël yóbbu la pendant deux ans ngay former pour am lijaasa sa du yomb ci moom parce que dafa am ay yitte ju taxaw yor na kër donc foog ñu adapter suñu formation en terme de cycle ci guddaay bi mais ni ñu koy dérouler pour ñoom ñu leen téye waaye tamit accessibilité à travers les langues. Mm, surtout les yoo xam ne. même ki nga xam ne jàngul français wala am njàngam soriwut ñu man kaa jox xam-xam te loolu lu mën a nekk la moo tax ñun ci loolu la ñuy liggéey et on prend à cœur les questions liées à l'équité territoriale et à l'inclusion sociale moo tax c'est d'abord aller dans les territoires mais également toucher toutes les cibles qui ont besoin de ces de ces formations là comme je dis euh, les orientations stratégiques sont là les efforts de gouvernance pour y arriver seront là président de la solo si mu ko jox ni mu ko rappelé suñu xel dal na ci bu baax a baax. kon jigéen ñi mën nañu am yaakaar. bu baax a baax. am yaakaar <laughs> jigéen ñi góor ñi. waaw mag ñeeg ndaw ñi. képp kuy sénégalais rek. war ngaa man a am yaakaar xam jigéen ñi ñoo téye njaboot donc ñoom la ñuy jiital ci préoccupation yi. waaw parce que moom bu amee doole rek. kër yi d'accord nag li may bañ mooy. ñu ñu wax jigéen ñi rek. Ah, non ñaar la c'est comme école bi rek ngi koy waxee dañu doon wax les les les les fii à l'école. Hmm. mais ñoo dem ba commencé am ci contraire waaw c'est-à-dire déperdition commencé am ci góor ñi je pense qu'il faut maintenir les deux waaw euh, ba nga xam ne daal ku nekk ci réew mi di nga ci gis sa bopp c'est important hmm. jërëjëf Mouhamadou Lamine Bara Lo maa ngi lay gërëm foofu la ñuy jeexalee Soxna Fatou ñu ngi lay ñu ngi lay sant bu baax a baax mbégte tamit ñun ñoo ko am ah. hmm. ñëw fii euh, ndax jàpp naa ne amoon na jamono yëf metti woon na lool ñu daal ñëw fi hmm. di waxtaan ak sénégalais yi donc fi ñu mën a toll ci yëf yi rek day aajo woo ñu fiy ñëwaat donc di remercier bu baax a baax a baax a baax mmh. remercier sénégalais yi bu baax a baax euh, ñu xam ne rek ne le président de la république en tout cas ñim ñim fa ñim ñim ñim nome mmh. ñim joxee ndomba tànk xam nañ ko yitte mooy ku nekk rek fa nga nekk nga liggéeyal sénégalais yi bu baax a baax amul beneen mission wala beneen instruction bu mu mmh. joxe bu dul loolu donc ci lañ nekk di profiter aussi di nuyu waa Touba Mbacké nga xam ne suñ département suñ dëkk ñu am taxawaay bu yaatoo yaatu ci li xew Sénégal ndax je pense que alternance bi Sénégal yëpp ñoo ko bëggoon waaye ñun waa Bawol nag des suñu si ginnaaw ndax gëm-gëm la yéene la woon boo xam ne doxal nañu ko di nuyu ñu bokk liggéey bi Touba euh, le coordonnateur de Pastef Cheikh Thioro Mbacké ñoom Ahmadou Lo ñoom Biram euh, Mamour nañ ko bokkal ñëpp di wax ne euh, lu ñu defoon rek tey ji nañ kaa yokk ndax dañoo dem ci sénégal yi diggante ak ñoom ñu jox ñu ñu wóolu donc dañuy liggéey ngir ngir ngir ngir ngir ñu gën a mérité. Mhm. confiance boobu donc ñi ngi gis effort yi ñi ngi koy def donc ñun ñëpp ñu continuer ko rek. ngir euh, suñu ndam loolu gën a gën a jëm kanam. jërëjëf euh, Mouhamed Lamine Baralo mooy directeur général office national de formation professionnelle ONFP. Mhm. jiite itam mouvement Farlu bokk ci coalition Diomaye président ñu ngi koy gërëm ci disponibilité bi surtout parce que mhm. jot gi yombul. Mhm. yéen a ngi doog a na euh, jublu ci liggéey bi waaye nag waxtaan ak sénégalais yi ni nga ko waxee yenn saa ci baax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci loolu gërëm ñi doon teewlu émission bi yëpp gërëm toute l'équipe technique di leen dig daje àllarba incha allah ci beneen numéro Sénégal midi ëllëg incha ngeen am l' équipe de 2024 plus Adama Fall ak